mais sant yàlla sant yàlla ginnaaw euh, euh, bi président de la république euh, président son excellence Macky Sall a donné instruction à son gouvernement maanaam mu jël ndigal jox ko gouvernement du Sénégal à l'occurrence ministère am muy agriculture donc tax na tey lu mel lu jëm ci wàllu mbéy ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax parce que lu ñuy wax autosuffisance alimentaire Euh, sénégalais yi ñu ngi koy gis euh, en réel muy doon lu dëgg parce que boo demee euh, nga xool taux de production jóg na ci kaw bu baax a baax baax loolu sant yàlla la li ma ci dolli rek mooy tey gouvernement muy def te mu gën a yokk parce que lu ñuy wax ni ci wàllu immigration irrégulière li ma ciy proposé wu mooy ñu gën a dooleel bu baax baax baax baax secteur agriculture parce que bu ñu ci doolelee dafay permettre jeunes yoo xam daal déjà am nañu formation en agronome ñooñu mun nañu am ay projets yu takk projets yu am solo ñu liggéey pour que Sénégal autosuffisance alimentaire bu ñuy wax ñu gis ko parce que tey université boo dem depuis Ziguinchor ba Bambey ba ba Dakar il y a des jeunes étudiants ñoo xam daal dañu leen formé wu en agronome ñooñu bu ñu wàccee sur le terrain formé GIE yi association yi mun nañu gën liggéey pour que autosuffisance bu ñuy wax ni euh, mu am vraiment euh, en plus ñuy dem tukki ci bitim réew ci euh, ci voie irrégulière yi ñu mën a ko bàyyi parce que nit bu amee lu muy jàpp du lijjante pour dem feneen. kon loolu donc lu am solo la il faudrait que état du Sénégal jàppale bu baax baax muy def ñëpp gis nañu tey ñu ngi xaar deux millions huit cent mille tonnes de production pour deux mille vingt loolu ça veut dire que fan lañ ko jëlee en deux mille douze ba indi ko foofu lu am solo la donc le président et son gouvernement ñu ngi liggéey na Sénégalais jàppale leen ñu gunge leen pour ñu gën a liggéey et en plus lu ma ciy yokk mooy euh, boo demee ci yeneen euh, famille yi. maanaam famille euh, euh, religieux yi lañu ñoo xam ne daal ñoom ay taalibe lañu yor ay daara lañu yor na euh, ministère bi jàppale leen bu baax a baax ci wàll matériel wàll semence wàll entrant yi wàll engrais yi ñu jàppale leen bu baax baax pour que ñu mel ni tracteurs yi ñu mel ni tout ce qui s'ensuit ñu jàppale leen bu baax baax pour que ñu mën a liggéey effectivement parce que ñooñu tamit dañuy soxla autosuffisance alimentaire boo xam ne daal kër boo xam ne daal deux cent mu ngi fa. trois cent personnes foofu ñoom ñëpp ci benn kër la ñuy dund ñooñu dañuy soxla jàppale dañuy soxla dimbal te dimbal bi weesul boo xam daal nga jox ko moyen pour mu liggéeyul boppam mu amal ko boppam loolu lu am solo la voilà nga nekk euh, à député euh, ñu gis ren dañoo yokk budget assemblée nationale daa mu nekkoon 17 milliards ren mu nekk 24 milliards mu andi woon coow lool dem ci assemblée nationale oppos euh, député bi daal di ko attaqué noo gisee loolu. mais ñooñu ils n'ont rien compris xam nga ñun ñëpp opposition opposition la rek dañuy jouer seen rôle de l'opposition loolu lañ fi nekkee loolu lañ fi am comme argument mais li am solo te wër te wër mooy président lu mu yokkee budget euh, euh, de ministère de l'agriculture ñun xeeb nañ ko ñun en tant que béykat yi xeeb nañ ko ren yokk na ci vingt milliards déwén yàlla ñu fekkee ko ci jàmm mun na ko yokkaat encore lu ëpp 20 milliards parce que sénégalais yi loolu la ñu soxla dañu soxla ku leen leen jàppale te président Macky Sall son excellence mu ngi jàppale wu sénégalais yi ci wàllu mbéy. loolu c'est tout à fait normal ñuy wax ni budget bi dañ ko yokk ñooñu xëy na opposition la ñu ngi wax seen wax mbedd nañu continuer ci loolu rek loolu lañu am opposition naa ko ça donc euh, euh, li ñuy wax rek mooy na président jéem a jàppale bu baax a baax te mu ngi koy def mu continuer wu ci loolu.